waaw salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal li may wax tey nag du bari tey dama bëgg a wax ak réew mi bëgg a wax ak sénégalais yi bëgg a wax ak jeunesse su Sénégal bi bëgg a wax ak ñi nga xam ne dañoo bëgg réew mi dox. xam nga lu nekk rek ñu jël ko naan président déedéet lépp président mënu ko ñu bàyyi bàyyiwaat xel bu baax a baax xam ni koñ bu dox rek am na ku ñu fa teg pour mu doxal ko. élection maire nag mi ngi waaj a ñëw nañu ubbi suñu xel ñun ñëpp ubbi suñu xol ubbi suñuy maayin te déglu li may wax incha allahu xam nga buuñaa sax am nañ ko mooy maire yi am nañ buuñaa ndax ba ñu waree def élection bi yàgg na mais tey avec Covid bi ñu yokkaata yokkaatal leen ba janvier incha allah bàyyi leen ci xel janvier la élection maire yi ak fu maire mën a ne ci réew mi xale yi jeunesse bi ñi nga xam ne ñoo bëgg seen koñe di dox ñi nga xam ni dañoo gis ni seen maire yi amuñu njëriñ parce que bari na ay maire yu amul njëriñ waaye tamit bari ñu ci am njëriñ léegi yéenay choisir yéenay xool man sama snap est ouvert sama facebook est ouvert sama instagram est ouvert ànd daaneel mair yu amul njëriñ yi mouvement boobu laa teg ànd daaneel maire yu amul njëriñ yi lu nekk ak période am nee leen lu nekk rek su jotee pour ma wax ci dinaa ci wax ànd daaneel maire yu amul njëriñ yi dinaa dugal lii Instagram dinaa ko dugal fépp commentaire yi dama koy xool ba mu mat sëkk ndax tey suñu réew ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko mën a defar te ku ci nekk dañoo jël budget bu mag jox la amoo benn njëriñ dañ la fay jëlee dégage ànd dégager maire yi nga xam ne amuñu benn njëriñ seen gox yi dinaa defar ñaari tablo tableau bii mooy tableau maire yu am njëriñ yi tableau bii mooy maire yu amul njëriñ yi léegi nag yéenay xool kan ngeen wóolu ci seen koñ ñu jël ko biri ko coow ko nit ñi xam ni kii moo fi ne ñu mën koo teg ci maire yi ba ngeen bëgg ñu teg ko fa mais maire yu amul njëriñ yi moom dégage nañu takkaat suñu tubéy yi bu baax jigéen ñi takk seen sër xale yi yëngal ñu ñëpp ñu ànd booloo jéem a daaneel maire yu amul njëriñ parce que Sénégal laa jóge barki démb mais am na ci koñ yoo xam ne su ma fa jaaree damay ruus dama naan est-ce que fii teg nañ fi maire te ñoom ñoo waroon a defar foofu mën a jàppale gouvernement bi parce que ku ci ne jël nañ budget bu bari jox la muy fépp nag du ma limagum tur mais fu mu nekk nii maa ngi ci vision yu mat sëkk te maa ngi jot ay retour maa ngi jot ay appel maa ngi jot ay décision yoo xam ne xam nañ ni ñii moom dañ leen di dégager te ànd xeex da ànd daaneel maire yu amul njëriñ yi loolu moom ci man lay commencé na ñëpp pare ñu daaneel maire yu amul njëriñ yi ñi nga xam ni bëgg nañ mairie bi te ngeen wóolu leen seen koñ yi te ngeen xam ni ñii kat dinañ jàppale jeunesse bi ngeen wax ñu ko ñun ñëpp ñu ànd coow indil ko loo xam ni tey réew mi dinañ xam ne kii moo fi ne ñu fal ko ci maire yi mair yi nga xam ne amuñu njëriñ bàyyi leen ci xel bu baax a baax a baax ñoo ngi seen kaw ànd daaneel mair yu amul njëriñ yi te incha allah maire yu amul njëriñ dinañ leen descendre ndax dinaa def ay tableau yoo xam ne maire yu amul njëriñ ñi lañ ci nekk am ay tableau yoo xam ne maire yu am njëriñ ñi lañ ci nekk am ay tableau yoo xam ne ñi nga xam ne ñoom la jeunesse bi bëgg ak sénégalais yi bëgg ñu fal leen dinañ ci nekk fépp nag lu ci waay wax incha allahu rabbi ñun dinañ ko déglu te dinañ ko waxaat bu neexee yàlla janvier la élection maire yi bàyyi leen ci xel bu baax jaajëf